man intérêt askan wi ma répété ko jaaratul fii ci politique benn bakkan di fi di fi rot man dama koy wax jàkkaarloo ak sénégalais homme politique yi fi nekk yi ma xam waruñu leen jaral kenn di fi dee jaru ko sa sacrifice suprême jaruñu ko parce que yu bëri ci rëccu rek lay mujj